ren tamit euh, tabaski bi duñ ko amal ci benn fan fii nii si Sénégal muy benn débat bu yàgg yàgg bu ñëwaat laaj bi moom mooy lan moo tax ba léegi ni mën noo fexe ba am solution si wàll woowu Sénégal euh, tabaski korité ñëpp di ko màggalandoo si benn fan. waaw loolu benn aspect la rek ci ni nga xamante ni noonu la juritu Sénégal yi ñàkk a àndee di feeñ. dañ koy xëy na gën a focaliser ci ay tabaski ak korite te loolu du du lu fi bees man bi may nekk xale maa ngi fàttaliku nit ñi dañ daan toog temps yooyu téléphone portable yi amagul woon téléphone fixe yi di woote ay dëkk naan dañuy xaar ndax ndigal jëp na daawuñu lijjanti ndax weer bi feeñ na mais ndigal lañ daan laajte léegi nag bu nit ñi amee genre conception boobu ci wàllu diine loo xamante ni l'islam daf ko def mu nekk mbiru jaamu yàlla nekk loo xamante ni ñëpp ci yem yàlla rek moo tax ñu ñu koy def ci liko yalla lonk lu leer la lu ñepp mëna a xamal seen bop la du lo ay nit jag jago ño xamni ñom rek ñoo ko a xam ñepp ko mëna xam moy lan moy gis wër bi bu jullit ñepp doon andando diko def buñ ko gisee yëgle ko ba ñepp xamni wër bi feeñ na loolu boobu problème yépp problème yépp doon na dañ problème dootul amati ndax loolu nekkul ci loxo kenn mën na ñoo def benn commission boo xamante ni commission nationale lay doon boo xam ñëpp dañ ciy gis seen bopp kër dina yi fi nekk ak ñi fi nekk di yëngatu ci l'islam yépp am fa seen i représentant ñu waxtaan seen biir teg ko ci xam-xam teg ko tamit ci li nga xamante ni mooy objectivité teg ko ci principe bu lislaam yi ci ne fépp fu fi weer bi feeñ dañuy génn benn déclaration ñëpp àndandoo ci ñu wax loolu signé ko. ànd fépp si biir réew mi wala fépp fu mën a feeñ même bu nekkee biti. waaw bu dee loolu masala wu ànd ci réew mi ak génn réew mi seen un peu complexe. ndax boo ko dee jàngat ci fiq dafa compliqué ndax l'islam dafay transcender li nga xam ne mooy suñu frontière administrative yi. xam nga l'islam en tant que diine du def différence diggante Mali ak Sénégal tey yow boo nekkee feq yi nekk boroom xam-xam di wax ci lislaam ci li ngay gis ci texte yi di ko jàng da ngay am problème ci weer bi feeñ Bakel nga warloo ki nekk Dakar te ki nekk kaay du mën a wor alors que ñoom ñaar ñoo gën a jegante foofu que yow yàq yàq yi nga xam ne yéen nekk yéen a nekk Bakel li tax nga wax ko ne ñoom ñaar sañu ñoo warandoo alors que yaak moom sañ ngeen warandoo mooy parce que ci dëkk bu tudd senegal ngeen nekk Sénégal boobu noonu moo existé wul ci lislaam l'islam faalewul loolu du ko xool lu ñu fi teg la dagg ko xaajale ñu ci. Hmm. mais yow en tant que borom xam-xam da ngay am problème ci loolu. roosu Mauritanie roosu Sénégal nga ni leen bu bu roosu Mauritanie gisee seen roosu Sénégal du wóor alors que bu roosu Sénégal gisee ki nekk Dakar dina sañ a wóor loolu dina naqaree dégg trop ci jullit bi xam l'islam légui nak yoyep ay mbir la yo xamni xeyna mënon nañ ko jàngat jema xol ba légui rek naka lañu minimiser un peu li nga xamni mom moy mooy parce que borom mom yi yi ubbee di wax ne na kenn ku nek yam ci dëkkam dañuy def luñu tuddé ñu akhaf ad-dararayn irtikab akhaf ad-dararayn Cheikh mohammed moy sa ñaari portable yi di waaj daanu no bayil sax ma ngi lay ma ngi lay yolé tuti dila bolé gaay bala gaay na na kon ay ay ay. portable waaw fekk ben légui benn nit di wa di la rek waaw misaal ma ngoog mm-hmm. di waaj a daanu ñaar yëpp di waaj a daanu bu ñaar yëpp daanoo dañuy toj léegi mënoo leen a jàppandoo mais mën nga jàpp benn da ngay xool bi gën a cher nga jàpp ko mm-hmm. bi nga xamante ni par exemple cinquante mille lay jar nga bàyyi ko mu daanu bi jar trois cent mille nga téye ko loolu ñu tuddee irtikaab ba xef fi dara rey ni mooy nga minimiser un peu les dégâts mm-hmm. yenn borom xam dañ ne mënuñoo warandoo normalement li waroon am mooy monde islamique bi yëpp warandoo wareendoo julleendoo mais comme lolu c'est quasi impossible nañ minimiser dégâts yi minimiser dégâts yi moy lan nañ wax ne dëkk bu nekk na worondo ak moromam bu nekk na ak parce que ko deful dañuy obligé devons muccul ci comme li am Sénégal li am Sénégal nak lolu indi indi commission dem na ba ñi ci amatuñ crédit bi ndax nañ ma un peu mo ci dem ci ne bu en toute transparence weer kase la ñuy xool xaaruñ ci lu neex ma sàmba wala lu neex ma demba bu weer bi feeñee ñu xam ne weeru yàlla la ku woor wooraloo di wooraloo yàlla sa digganteeg sa borom la yoonu kenn nekku ci yàlla moo ne as-sawmu lii wa ana ajzi bihi koor man maa ko moom te maa koy fayal sama bopp julli gi ngay def yàlla nga koy defal lenn lu ci nekk yàlla la weer wi feeñ na ay jullit yu maandu wax nañ ko nga daal di woor nga daal di wori nga daal di julli bu fekkonte ni ci loolu la problème yu bëri ngay gis ni dootul dootul fi jóge. mais yaa ngi wax tam minimiser les dégâts mais saa est-ce que du minimiser yenn erreurs yi mooy tax ñenn ñi di gën a doxal prudence parce que am na ñuy woote yenn saa naan gis naa fi nangam après bon boo defee vérification yu bëri pour nga am naa ko day jafe est-ce que nekkul prudence moom mooy waral yenn saa yi dem ba bëgg a gisal seen bopp wala am ku wóor koo xam ne wóolu nañ ko mu gis ba ne leen gis naa ñu soogaa mën a woor wala ñu wari wala ñu julli tabaski wala bañ koo julli est-ce que nekkul prudence tam ñu indi foofu. waaw loolu mën naa ko comprendre prudence ci cas yëpp dafay am moo xam ci euh, ki woor premier jour wala ki woor deuxième jour hmm. yépp prudence bi dafay am mais prudence du àgg dem ba nag ci ñu ne weer bi feeñ na ñu wax ko ci ay sources yoo xamante ni yu wute la ay nit yoo xamante ni ñu ñu mën a wóolu lañ jël seeni téléphone woote wax ko nga ni parce que su ma ko waxee xëy na diw du ko du ko du ko du ci ànd wala yooyu nga daal di koy naj ne doo ko jàllale parce que sinon da ngay obligé fragiliser sa commission ndax xeyna na nit ñi duñu warandoo wala nit ñi duñu warendo loolu du prudence loolu mbiru affaireu euh, naxante la yu mel noonu loolu té loolu yag na fi fi au Sénégal Cheikh Mouhamad maanaam limay wax ci waaru ñaari julli yi nit ñi dañ koy wax mu melna comme lu bees la fi fi au Sénégal mais nekku fi lu bees de. lu fi lu fi lu fi yag la. am na tamit borom xam-xam yi euh, dañoo wuté tam si ndax war neen xarala yu bees ndax war nañ ko jëfëndiko waaw wala déet mais ndax bu ñu doon jëfandikoo du gën a yombal mbir yi ba ñu xam ne du sol sax ngay séntu pour xool wala di gis mais technologie dina la won ne heure sàngam ba heure sàngam bés sàngam si lay feeñ. waaw am na ñu koy def xam nga borom moo xam ne dañ cee gëstu wax ci lu xaw a yàgg tuuti benn bi mooy yi nga xamante ne ay jumtuwaay comme ni nga ko ay jumtuwaay xarale yoo xamante ne dañ koy xool pour xool tuuti asamaan si ndax dinañ mën a gis weer bi. Mhm. beneen bi ci des mooy calcul yi yi nga xamante ne dañ koy def. pour mon a xam ba xam weer bi war na mën a wala warta mën a pas feeñ na wala feeñul ñi dañuy wax ne dañuy xam ba xam mën na mhm. muy possibilité ndax possibilité condition la ci mbir réalisé wu lu possible du réalisé wu loolu wax ne al al chartul lil lil xusul mën a nekk mbir dafay condition la ci mu nekk ñoom sax yenn saa ñu ne la diggante heure sangam ak heure dina génn mais kenn du ko mën gis léegi nag l'islam ñoom des fois ñenn ñi tamit li ñu comprendre yenn scientifique ak yenn soi-disant scientifique yi li ñu comprendreul mooy l'islam atte bi aju ko ci weer bi mi ngi fi wala weer bi nekku fi mi ngi ko aj ci gis nañ weer bi wala gisuñu weer bi alors que am na différence entre les deux ndax yonent bi bi muy alayhi salatu wasallam boo xoolee bi mu waxee ci xadis abdullah ibn omar daf ne fa in gumma alaykum fa akmilul idda ci yenn riwaaya daf ne fa in gubbiya alaykum daf ne na ngeen Euh, dem ba le 29 bu le 29 jotee ngeen xool weer bi bu fekkente ni am na niir muy nuage bu dox seen digganteeg moom ba mënoo leen ko gis mu ne matal leen 30 jours boo déggee ni mu waxee da nga ciy déggee ne weer bi mën na fee nekk waaye am na lu tax mënuñu koo gis bu boobaa kenn du ne weer bi feeñ na ni mu waxee. Mhm. ndax bu nee bu nuage bu benn niir doxee seen digganteeg moom ba gisoo leen ko loolu da nga sous-entendre ne kon weer bi mën na fekk ne mi ngi fi. Mhm. mais comme mënuñu koo gis. mu ne continuer leen ngeen mënal 30 jours léegi bu fekkente ni loolu la wax kon liñ ñu ciy déggee mooy atte l'islam bi dépendrewul ci weer bi mi ngi fi wala weer bi nekk fi kii calculer moom daf naan la weer bi mi ngi fi léegi weer bi mi ngi fi anaw gisuñu ko l'islam moom daf ne mën naa ko gis su ma ko gisulee ma continuer te loolu mooy li gën a wóor ndax bu fekkonte ne dañ ko ajoon ci gisuñu weer gisaanuñu weer mais dañuy def ay calcul kon dinañ dem ba lu bëri ci atte l'islam bi dinañ ko sànq d'accord léegi